inna lillahi wa inna ilayhi lañ koy dooree ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek génn ko àddina ki nga xamante ne rek moom mooy Mounass la capricieuse ñu gënoon koo xam ci doomu Sonko moom nag moo ñàkk bakkanam rek ni ki démb ginnaaw bu ñu ne rek feebar bu yàgg yàgg rek moo ko daal di tëral waral nag kii di El Hadji Malick nekk responsable bu Pastef dal di koy bind nag ci ab page Facebook ci ab page mu nekk perte boo xamante ne rek perte nañ ko ndaw sénégalais yi perte na ko waaye nag parti bi di Pastef nag euh, perte na ko ndax euh, kooku di menace nag nekkoon na koo xamante ne rek ku engagé la koo xam ne ku ñeme woon euh, terrain bi la koo xam ne nag patriote jaraloon na ko lépp ak parti bi di Pastef nag jaraloon na ko lépp waaye nag jamono ji nag dafa ñàkk bakkanam rek mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu métti la moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne nag sàkkuteef rek sàkkuteefu kii di menace lenn la woon rek mooy kii di Ousmane Sonko nekk président ci atum 2024 waaye nag yàlla mujjul dogal mu fekkee boobu ko jébbal képp koo xamante ne rek ah, patriote nga rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunesse bi ak ñi faroo fi nga xamante ne rek moom ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaral ko aljana moom nag la mu daal di xam ne rek nekkoon na koo xamante ne rek ku am njëriñ la woon ci parti bi nekkoon na ab influenceuse nekkoon ci TikTok bi nag di ci wax lu baax di ci def loo xamante ne rek day jëmale kanam ah, kanamu parti bi ñu ngi koy jaale bu baax ay mbokkam waaye nag équipe bu net bu TV TV nag ñu ngi koy jàll àdduna yëpp ni la ngeen jëf ci teewlu bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaa yeneen info